ak Chalde la mu waxoon ca 2011 xaw ma 2012 ne as mi ngi ñaan armée bi su su génnee mu féete ci côté askan wi man da jàpp naa ne jot na. parce que réew mi nag ni ëpp na bés nañ nit ñi bañ àgg ca miir ba étudiant di étudiant Pastef boo xam ne nee nañ dañ ko invité woon ca émission balance fële ca Walf benn oto moo ko. maanaam benn oto boo xam ne kenn identifié ko moo ñëw jàpp ko moo ñëw jàpp waa ji daaw dëggee keroog biñ koy jàpp oto boo xam ne kenn identifié ko noonu léegi est-ce que ëllëg beneen yoon ay nit mënuñoo jël ay oto yu ñu identifié wul di def naka su dul noonu su boobaa duñ xam ba xam police la wala du police réew mi fi mu fi nekk nii baaxul de baaxul de yàgg naa bon fi nekk sax waaye. jamono ji ñu nekk moom dafa pire